pour waxtaan l'opinion nationale comme internationale ci ay cas ça fait des mois euh, des mois en tout cas ñu ngi parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mardi 3 janvier bi' passé ginnaaw manifestation bu rëy bi nga société civile amaloon nañ le 30 décembre à la place de la nation pour exiger des éclaircissements par rapport ak li nga xamante ne mooy le rapport bi Cour des comptes produire ne alalu askan bu ñu dajale woon pour xeex Covid 19 dafa am ay ministre ay daaf ay directeurs généraux yoo xamante ni dañ ko luubal dugal ko ci seen poche ñun en tant que membre de la société civile bañ rapport boobu jaar fi yeneen rapport yi jaar comme te Macky sàll moo ko wax le président de la République de tous les Sénégalais. ne bëri na ay rapport yoo xamante ne moo ci teg concam te ñun xam nañ yan rapport la teg concam mooy ñu ànd ak moom nekk ci nguur gi di luubal alalu askan bi te boobu ba léegi mujjul fenn parce que de deux mille a mille vingt 2022 muy 10 ans fukki at yi nga xamante ne Macky Sall def na ko ci bopp réew mi mu soo leen dégg wala ngeen gis ñooñu Macky Sall bu ñu tuumaal fukki dërëm. nous dem devant la justice pour seetal boppam wala pour wedi touma amout et pourtant le 3 avril 2012 nous tenirons un discours à la nation promettre à tout le peuple sénégalais à une gestion sobre et vertueuse mais on voit tout à fait le contraire une gestion sombre et vicieuse ci kaw nous ñu organiser manifestation pour le rapport bi mel yeneen rapport minimal. manam ñu ci tiroiru procureur de la république sénégalais ay junniy junniy sénégalais jóge fu nekk nag ci Sénégal am na ñu jóge ci ay région ñoo fekkee ndaje moomu la parce que rapport bi daf leen soxal le premier ministre wooñu nañu dama bëggoon ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan xool nu ñuy def ba rapport bi ñuy utal ko suite boo xamante ne nii dina baax ci sénégalais yépp ñu dem wuyu ji suñu ay camarades ñett ci ñoom ñu teg leen ci loxo ñun mënuñu concevoir loolu munuñu nangu loolu xeetu jaay doole boobu mooy lan kaay leen convoqué ay nit ñu ñëw nga jàpp ñett ci ñoom ba fu ñuy waxee gi yéen nii ñu ngi kaso ñu ngi prison di croupir muy ñett ñi nga xamante ni mooy Ousmane Sarr bokk nitu dëgg valeur bay na Gueye moom tamit bokk nitu dëgg valeur ak Amadou Sarang Diallo bi nga xamante ni collectif ñoo lànk la bokk ni fatali askanu Sénégal yépp lenn dong lañ leen di toppee muy dañoo taxaw ci kaw trottoir ci buntu Petit Palais bi nekk côté hôpital La ne libéré Pape Alé libéré professeur Cheikh Omar Diagne libéré Abdou Karim Gueye libéré Ami Dia Ousmane Diagne ak ñom ak ñomi police japp leen ci gis ngeen ñépp arrestation musculée bu ñu leen as benen George Floyd am ci réew parce que gis nañ policier civil japp euh, am Amadou Sourang Diallo djel euh, óomam bi tek ko ko ci loos bu muy yuuxu yi metti ñu paré japp len dans des conditions vraiment regrettables yobul len ñu fogon ni dinañ len bayyi ci jour bi parce que loolu lañ ñu waxoon dem len ñibi seen kër c'est le secrétaire général de du gouvernement moñu ñu dem nañ ngeen ñibbi ñii dinañ leen bayyi léegi parce que ñun ñu am ci yaakar nak parce que japp nañ ñu luñu def waru ñu leen ci mëna topé dara à notre grande surprise ñu yóbbu leen procès ba lënd bi muy demb le juge bi génne ndogal tëj leen ñaari wéru kaso yo xamantene dañ koy tëdd nous sommes dans quel pays ban dëkk la ñu nekk légui dëkk bo xamanteni

lu ñu wax noonu nga xamantene amul ben impact ci dundu doomu adam ñu tejj ci ñaari weeru kasso au même moment au même moment ay nit ñu leen di toppee ay détournement de deniers publics à des centaines de milliards ñu ngi vaquer librement à leurs préoccupations non seulement nous dénonçons cette injustice notoire bi nga xamantene ne nañ ko muy daan bu ñu leen daan ñaari weeru kasso et nous exigeons leur libération sans condition et sans délai. nañu leen bàyyi nu mu gën a gaawee waaye au même moment nu ñuy dénoncer loolu ci li ñuy fustiger Macky Sall manipulation bu mu nekkee ci justice bi kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci réew mi parce que ñun ñëpp xam nañ ni ku ñuy wax Mame Mbaye Niang ñi ngi koy tuumal vingt neuf milliards ba léegi procureur xamul kanamu Mame Mbaye Niang nu mu mel parce que woolu woo ko Mamour Diallo. ñu ngi koy tuumaal quatre-vingt-quatorze milliards ba léegi procureur xamul kanam kanamu Mamour jàll bu mu mel parce que wóoluwu ko yoonam nekku ci yéen ñëpp dégg ngeen six mille milliards Petro-Tim procureur pour étouffer affaire bi mu ne appel à témoin te mu waroon yóbbu dossier bi instruction bàyyi juge d'instruction mu def ay investigation def liggéeyam wax lu ci am yéen ñëpp gis ngeen ni. rapport Covid cours nga cours des comptes produire produits, ministre de millions de par semaine pendant 4 quatre mois chaque semaine nous avons 100 100 millions 50 millions le procureur narul xam nu mu Sénégalais parce que nous sommes fenn ñu ci justice war depuis des mois y y des jeunes qui la force spéciale Ils ngi croupir en prison depuis juillet au mois juin depuis le mois de juin passé ils ngi croupir en prison ci ont xamante ne lu de leen di tuumal des benn preuve juge sur la table ou le procureur Mais ils lu ñu leen au même moment il y a des preuves yi accablé les ministres les directeurs généraux du au même moment a pris en flagrant délit euh, trafic de faux billets 32 milliards lu ak lu ko teg ci faux billets nga xamante ne tey su ci économie yu réew économie réew day nërmeelu Bougazelli libre ñun ñu toog parce que à tout moment mën nous ñëw jël si Baye à bii Fouta Tampi mën na nous fii léegi ñu ne le kaay yóbbu kaso tëj réew boo dem ba délinquants financiers des criminels économiques nous ëpp liberté les honnêtes citoyens

ma colle le motif tout la ci kaso bi bàyyi fa 3 mois 4 mois 6 mois 7 mois place le sous contrôle judiciaire Si vous ba une liberté provisoire moo doon am parce que man mii di wax depuis 2019 ba léegi maa ngi doxantoog liberté provisoire mais léegi jëlatul liberté provisoire sous contrôle judiciaire lañ lay ne ba tu sous contrôle da ngay joxe sa passeport le droit génn réew mi droit wax ci tel sujet so ci waxee mën nañ la ne da violé contrôle judiciaire bi yóbbu waat la nungu siin au même moment ay nit yo le droit de lu réunir. mi ay nit ñak sen bakkan ci Covid bi parce que ñun ñep dégg nañu né amna ay nit yu ñak sen bakkan parce que amuñu de li buñu leen mëna teural amna ay nit yu ñak sen bakkan amuñu oxygène nous mëna jëfëndiko milliards ñu sacc mënu won jënd oxygène ay oxygène loolu mënul jall ci réew mi moo ñun ñu woté point de presse bi pour waxtaan ak askanu Sénégal na leen jug jot na jug jot na mënuñu toog di sétat Macky Sall avec son procureur de la République avec son juge d'instruction di comploter sur le dos des Sénégalais di yop nit ñi kasso ci ci lu ñu tagul fenn ci lu ñu tagul fenn au même moment ñu bàyyi des délinquants ñuy vaquer librement à leur préoccupation loolu duñu ko nangu tay duñu ko nangu ëllëg motax ñun ñu japp ni ñaari camarade diversion parce que nous, sommes mbébét seen dox lu ñuy dox diko mënu lepp moy def ba fay des comptes sur le Covid 19 nous sommes ñun nous ko nangu ñun duñu ko nangu Covid 19 bi tay lañuy gëna exiger à ce que justice def liggéeyam maintenant dinañ may occasion parce que nous, gëm nañ sénégalais yi am lu ñoog Macky Sall ci jaay doole gi mu nekkee ci réew mi ci deux poids deux mesures bi nekk ci réew mi ku wax ñu def détournement de procédure buñ la yobbu flagrant délit yobbu la instruction bay la 6 mois ci kasso bi nga dénd ñu la sous contrôle judiciaire té duñ la sax dédommagé ma ño leen ko wax fi ñun wa Colideb ñoo ko wax fi ñi ñu fi placé sous contrôle judiciaire yépp do leen dégg kenn ku ci dem procès amul kenn ko xamante di nga ci dem procès

dans un proche avenir jour yi di ñew dinañ waxtaan ak askanu Sénégal wo len ci rassemblement bu a mag ñu nous woon ñu ñew téwé ko pour nous exiger la libération de tous ces otages et détenus politiques qui depuis des mois sont en train de croupir en prison parce que ànduñu ñok Macky Sall ci gis-gisu politique loolu mënul jall dans un état démocratique.